ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري bokki جلتي عندك نون في nun ci ak fu ngeen mën a féeti rek ci kaw dënd bi ngi yëkkati sunu kàddu di ci jiital sant buur yàlla eh, di ko ñaan moom borom bi tabaraka wa mu dollee julli ala qiblatil arwaaxi di mawlaana muhammadin sallallahu alayhi wa ak waa këram ak i saxaabaam ak njabootam ga salaatu ak boo xam ni dana baawaan ak xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk wala sax ku tegul sa tànk ala siraatil mustaqim yàlla na bur yàlla boole ñu ci ña teg seen tànk ala siraatil mustaqim e di ñaan borom bi tabaraka wa taala niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya ak niiri leeram ya ak niiri feeñuwaayam ya yàlla bu mu دوتي على ko شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا Maulana Abil Abbas Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu di nuyu képp kuy ànd ak nun rek ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na buur yàlla boole defal nu ko dunyan wa uxra di wax rek ni xëy na ni ma ko waxe woon rek Eh, gëje dinay am léeg-léeg waaye du tee rek ñu xam ni liggéeyub diine moom waabud rabbak xata yaatiyaka al yaqin rek la waaw waabud rabbak xata yaatiyaka al yaqin waaw buur yàlla moom des di sax ci di ko jaamu rek ba kenn ku nekk rek eh, fa mu yemale sab digg waaw moom la wax yonente alayhi salaatu wassalaam ni ko noppalu moom amu fi waaw waabud na nga wéetal ak di jamu rabbaka sabaram bila yar yor la hatta yatiyak ba mu lay dikkel rek al yaqin pri mi ci gëna a siiw nag mooy dee yaqin parce que li tax lolu moy certitude balako nita am bété mu dugg bammel fi ci kaw suuf nit bu dundu danaka da fay nek dans l'incertitude pas totalement mais fay nek dans l'incertitude motax tax yonent bi alayhi salatu wassalam daf dan wax muni ni annaasu wa idha matun tabahu nit ñi dañi nelaw waye ku de yew motax lu upp ci borom xam-xam yi ñu ni batu yaqin bobu limi tekki moy de waye de nak approche bi ci nit ñi am ak approche bi ci kat yi di def taxna nit ñi ragal ko waaye wuute naat ñun li ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal bu ko defee nag kon fa tabaarakallah gëje am na yooyu yëpp mooy tudd nii ak di ko junju jombul yàlla mën naa def ba si ñëw ñu def li tubaab di wax indexation teg suñu baaraam ci benn bu nekk ci yooyu leeral ga mu yellool itam lañ ca mën ñu def ko ca bu ko defee bokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di dellu siwaat ànd ak yéen ci jotaay bii nga xam ni jotaayub Seyd Ahmad la radiyallahu taala anhu ndax li tax moo di la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam santoon moom Cheikh radiyallahu anhu chargé ko ko ni ko lii laa la sant moom def na ca ba def ca loo xamante ni bii ni sax sut na njorti képp koo xam ko doon xaar ak di ñaanal kon fa tabaarakallaahu ñun mënuñu lu dul rek tabliir muy jotal moo tax su ngeen seetloo ñu ñëwoon ak yéen ci lenn ci arkaani tariqa bi maanaa lawraat yi nekk ci biir tariqa tijaan liñ ca tudde al al awraad al lazima muy yi nga xam ni boo xasee jàpp tariqa tijaan lu mënti xew da nga ko war a taqoo taqoo gi mooy seeni waxtu fu mu jotee da nga ko war def waxoon nañ ci wirdu suba ak ngoon lazim nag moo gën siiw waxoon naa itam nuance bi ci amoon parce que bu ñu nee lazim baat bi li muy tekki baatu arab la li muy tekki mooy lu ñuy taqoo ndax li indi loolu tariqab tijaan bi muy ñëw ci Cheikh Tijaani radiallahu anhu yonente alayhi salatu wasalaam joxandoo bu ko lawraat yëpp déedéet dafa ñëw rek fekk cheikh boobu waxoon naa ni 46 ans la am waxoon naa ni itam booba mi ngi ca dëkk bu ñuy wax abi samghun waxoon naa ni itam bi mu ñëwee bégal na ko ci ñetti maqaam yi nga xam ni mbubb la yooyu Cheikhu Tidiane du ko summi di ko solal benn niti yàlla mbaax eggu ci ak cell eggu ci muy maqaamal barzaxiya al uzma ak maqaamul katmiya ak maqaamul ci la ko joxe nag astaghfirullah téeméeri yoon ak salaat al fatih téeméeri yoon moom yonente alayhi salaatu wassalaam daal di ni ko téyal lii ba lépp loo jàppoon dama yaakaar ne nag nit ñi dañoo déggul loolu ku tël ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ni moo di ayni lxaqi moo di talaati lxaqi moo di saaxibi lxaqi di naasiri lxaqi bilxaqi ku toll noonu dikk ni Cheikh Tidiane yi loo jàppoon bàyyi ko kon war nañoo sedd war nañoo bàyyiwaat xel kon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappulo Cheikh Tidiane gannaaw bam ko bàyyi Pas jappone parce que xela nangul ku tol ni Cheikh Tidiane ak famu jaar nga xey ni ko li nga jappone lepp bako tamuy lu bax kon la xel nangul li dum jang la xel nangul rek moy kon lam ko jox mo gën timir yon lam lam la bi kon lolu lima ma bëgg wax moy ñu wat xel ci lawraat yi ndax nak deug deug fofu la mbir yi ba tax yonent bi jox ko astaghfirullah temir jox ko salat al fatih temir dal di dem cheikh téye lolou pendant 4 ans motax tidiane bi ci kaw souf kenn la mu cheikh tidiane <laughs> ah set lu waye ah, fi maqama yi ci mom la wacc charte yi ci mom la wacc lawraat ci mom la wacc mom rek moy waliyu yalla wi nga bi ni c'est-à-dire boko beugé lu meunti xew nga dem aljanna ak lu ti xew kooku sans condition la parce que garantie la yonent bi alayhi salatu salaam moo ko defal kon nga nga war a xam ni kooku nag lépp lu mu ni nañ jàpp ci lii dëgg dëgg nag li xel nangu waxumam jàng de li xel nangu mooy ñu jàpp ko euh, donc yéen xale yi encore une fois vous la jeunesse il faut ngeen dellu siwaat ngeen dellu siwaat mooy euh, moo xam ñi féete ci wàllu daara la moo xam ni féete ci weneen wàll la ndax addinaa ni deme ngeen bàyyiwaat xel ci lawraadi tariqa bi lu ne nit mën na koo gëstu nag ci wàllu xam-xam ba ci lasraar lasraaru tariqa bi wa ma yataallaqu biha loolu yëpp baax na waaye gis nga encore une fois synthèse bi xam nga lu moo astaghfirullah téeméeri yoon salaatal fatih téeméeri yoon laa ilaha téeméeri yoon mbokk yi lii mooy synthèse bi soo ca noppee dem ci sa wazifa soo ca noppee nag ñu soog nag dugg nag tey ci li nga xamante ni bii ni moo tax ñu toog fii tey muy loolu ñu tuddee nag xadaratul jumaati problème mu tariqa tijaan yépp foofu la nekk je dis bien problème parce que xam nga lu tax hmm. bari na lu ñu diggee ci tariqa bi nit xemem lolé ba tax mu dem jappi tariqa bi té ba nëga ni da ngay gis mom ma nga sax ci di wax nan euh, man li ñuy wax nan tariqa bi soko jappé do am problème sangam tariqa bi soko jappé do am problème sangam bien vrai que lolu wurul wona tax sax nit di japp tariqa nak tariqa dang koy japp lillah dang koy japp ngir yalla ndax jaamu yalla la waye itam du téré euh, lolu mën waaye li tax liñ ciy wax yépp ñu bari buñ jàppee tariqa bi ginnaaw bi duñ ko gis dara waralu ko lu dut ni xadratul jumaa bi ñàkk fonk la gis nga boo toogee di wird astaghfirullah salat alfatih la ilaha illa allah yow dong yaa toog di ko def yow yaa koy jiite yow yaa koy tëj wadifa boo ko tàmbalee أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم جانغ صلاة الفاتحة جانغ لا إله إلا الله جانغ بن جوهرة نيار نيت نيت جروم جروم بن جروم نيار جوهري سمته كلا ينتهي الله محمد عليه الصلاة والسلام وخلفاء الأربعة أكسر أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه سوغا تيوي جوتاي بوبو تجوتاي بوبو ساق بورنيو تيوي كو دفع أم أي كونديسيون A condition que ñi wër mbalan mi amu ci ñaar ñu tuddantewul su amé ci mbalan mi ñaar ñu tuddantewul yent yalla muhammad wacc Tak tax bo munek mu nekk ben charte bu fondamental ci tariqa tijaan talibé teh yi baña a noonoonte bañ a bañante di bëggante te jàppante te jàppalante sëriñ bi loolu moy dëgg Mustaf gis nga loolu bu fi amul itam nañ jéem fexe mu am fi bu ñu bëggee jariñoo tariqa bi sëriñ bi waxtaan wax dëgg ca la lu tal ni ku tal ni yent yàlla muhammad alayhi salatu salaam tëgg ab tariqa jox ko cheikh tidiane radiallahu taala anhu ku tal ni sidi ahmad tidiane yi kooku porté tariqa ab tidiane jàngale tariqa bi ba ci sax léeg-léeg di nga ko fekk foo xam ne moom cheikh tidiane yi yonente bi alayhi salatu salaam xam nga nu mu ko woowee ustaasu tariqati moo tax si boo gisee maam maam xaw di ma jaxate sañ ko taggee noonu kay loolu moo tax wa man lii bi ustaadin aluudu bi wirdihi yaqini yaqinan kulla hawlin bi mawridi loolu moo tax parce que Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu moo jàngale tariqa bi nees ko war a defee nees mana teggin yamu laaj ak la aju yëpp ci doxalin charte yi nañ ko war a doxalee kooku Cheikh Tidiane moo ko jàngale nga nga am sa mbokku taalibe ngeen wër mbalaanu wasifa mi du ngeen tuddante ngeen di xiiroo ngeen di ŋaayoo nga ni yow moomu ak sa mbokk moomu leer dina tabb ci seeni xol déedéet du tabb ci seeni xol kooku xadis la ti bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam guddi altine bu nekk ak guddi aljumaa bu nekk danañu jël suñu dossier jëf yi nga xamni ni raqib ak atid ndax ma yalfidu min qawlin la ladayhi raqibun atid fi ci adina la waye buñu dekké dekkee yowmal qiyaam du raqib ak atid dedet fofu yenen ñaari malaika la yo xamanteni bi ni kenn ki fay japp ki sab loxo mot jëme kër yalla kenen ki bo démé ci kanamu yalla moy taxaw li nga jëfoon du yow yaa koy seede moom koy sédé wajaat kullu nafsin maaha saiqun wa shahid bo duggé ci bammel nak di monde intermédiaire bi fofu laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka basaruka al yawma hadid dafa bari luñ la doon wax ci sa digg ak yàlla ci aljana ak sawara mu nekkon dans le monde intelligible se gem ko xawa jafé jafe bo duggé duggee bàmmeel ñu muri kiira yi nga mom texé ak texé dé ci bokk yam ku ne di nga ko xam suko ko nak kon station yi nga xam ne nit dina ci jaar yépp ben bu ci nek lam fa wara confronter borom bi tabaraka wa taala wax nako ba mu ñun nak il faut que ñu ci wat ñu setaat suñu bopp jàngataat mbokk yi ku toll ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ngën ji mi di ki yàlla waxal pour mu wax ak jaam ñi kooku ni Cheikh Tidiane waxal say taalibe ne leen bu ñu noonoo ndax bu ñu noonoo man yonent bi lañuy ñuy lor lila koy tektal ma sank hadith la tejal parenthèse bobu sallallahu alaihi wasallam sallam guddi altine guddi aljumaa bu nek buñ ko indilee jëfi jamni. ni mu jëfi ni diko di lan la koy doye jëfi jaam ñi lenn rek li ci nek ci ay bakar mom yonente bi alayhi salatu wasalaam mu jéggalul ñi nga xamanteni bi ni ci xeetam yi ñoo doon def bakar ya yu mak ak yu ndaw yep waye gis nga bu àggee ci ben dossier bu nga xamanteni ne ni ni fay gis ni diw mi ak kat dañu am problème du ñu tuddante te ëpp na ñetti fan toog nañu weer tuddante wuñ te nee nañ ay taalibi tijaan nañ wala nee ay jullit lañu ñu ngi bokk ci ahlul qibla yonent bi alayhi salaatu wasalaam day jël dossier seeni dossier ñoom teg ko nee ni malaayika yi tegal leen ma ko nee ba keroog ñuy juboo ba keroog ñuy nekk ci jàmm di di nga sama tegal leen ma ne seeni dossier ñoom ñaar ñi xuloo ak ñoom ñaar ñi dul tuddante di tongoo tegal leen ma ne seeni dossier ba keroog ñuy nekk ci jàmm duma leen jéggalul yàlla man yonent bi xatta yastariha noonu la ko waxee yonent bi alayhi salatu wasalaam waa léegi léegi nag famille baabi ahra nag taalibi tijaan yi nga dikk toog ci mbalaani wadifa léeg-léeg sax nga gis ko nga xamante ni bii nii parce que yii wax dëgg yàlla daf fi war a jóg hmm? Hmm? diw duma de ak moom waa dem toog na le nga bëgg nga ni yow boo amee juróom ñaari jawharatul kamal yonent yàlla muhammad dana wàcc déedéet du ci serigne bi motax bo gisee manela ce problème yi c'est nous c'est pas tariqa bi amul problème charti du fi jog lawradi du màgget perle jamala xam nga problème bi ñan la ñun ñi ko wara appliquer ñun ñoo am problème légui nak comme ñun ñoo am problème nag dafa bok ci suñu problème ñàkk tudenté wa nañu dindi problème bobu nañu lever barrière boobu rek su ñu ko defee dinañ xam ndax li ñuy wax nii am na wala amul nag wax dëgg yàlla aussi loolu mooy dëgg su ko defee kon nag dafa bokk ci condition yi yi tax yonente alayhi salatu salaam bu ñëwee ci mbalaani wadifa mën a wàcc nekk yërmande dugg ci xolu taalibe yi mooy ñëwër mbalaan bi yépp dañuy soppante waa moos alaaji xalaat nga ni eh, eh, dinañu toog di wër mbalaanum wadifa te mënoon a def ab sàppe ñëpp jàkkaarloog xibla defatuñ ko de waaye dañoo wër mbalaan mi kenn ku nekk di janoo ak sa xar kanamu moroom loolu ban taabira moo ci nekkoon ana man njàngalee taxoon ñu doon ko def pour kenn ku nekk mën a jàkkaarloo ak sa xar kanamu moroom sa cofeel ci moom gën a yokk nga tëbb ci moom parce que taalu bi dafa war di tëbb ci mbokkum taalubeem looloy dëgg sëriñ bi parce que bu wéree ni yow taalibe tijaan nga yaa ngi jëfe charte yi yaa ngi jëfe lawraat yi yow jëmmi Cheikh Tidiane nga ci kaw suuf ku dajeek yow dalaa war a ziyaara loolu mooy dëgg sëriñ bi charti tariqa bi boo ko jëfee jikkooy cheikh yëpp installé wu na ci yow ndax charti tariqa bi mooy jikkoy cheikh Tidiane yi lawraadi tariqa bi mooy jëmmi cheikh Tidiane ci kaw suuf kon boo boolee jikko yeeg jëmm ji yow sotti nga jëmmam cheikh Tidiane nga yaa fi jëmmal cheikh Tidiane comme yaa fi jëmmal cheikh Tidiane nag dañ laa war a ziyaara moo tax taalibe yi war di ziyaarante ci seen biir lolo xaj ci seeni digënté mais pas non non sëriñ bi lool moy dëgg ko défé nak bu ko défé nak bu ko défé nak koku dama ko doon def rek ben rappel parce que nak ñun ay tout-terrain lañ voilà parce que ñun fu nek lañuy dugg té lu nek la nit ñi di indi litam man limay wax xamna ko ñu gor gor lu mbokk yi ko défé nak dama ni sank mbolé garantie ak ngëneel yi ñi wax ci tariqa bi ci kuko ko ba tax nit ñi daw dem di ko jàppi bari na ci lu tax man yi duñ ko gis xam nga lu tax ñàkk fonk hadratul jumaati kon léegi delloo ma suma fil bi dama doon wax sànq ni soo toogee di lazim yow dong yaa koy def boo toogee ci wazifa boo àggee ci juróom-ñaari jawhara ak avec toutes les conditions réunies toutes les conditions réunies hatta ci mbalane wasifa mi kul tukh bu fa tok yonent bi di wacc motax kul tukh même buñ ko joxe tariqa bi buñu wéré mbalane mi mom dañ koy ber ni ko demal tok né na leer de légui ma ngi gis ñi tukh di tok ci mbalane mi bu baax ma ngi gis ñi tukh di ñaan ma ngi gis ñi tukh di debbe ma ngi koy gis suñ ko bayiwul yat lay wut nak waaw parce que itam dafa am loo xamante ni bii ni kenn du ko seetaan déedéet gis nga tariqa bii du ay fo te du ay caaxaan mbokk yi bis bu nekk wax leen ni walu yàlla wutal ni Cheikh Oumar foog ngeen ni moos dina lépp dikk ni rukk ci kanami Cheikhu Tidiane te Cheikhu Tidiane du dëgg loolu xel nangu na ko yi xalaat ngeen ni walu yàlla wutal ni Cheikh Abdul Ghani Chérif radiallahu taala anhu bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi dëkkam bàyyi léppam doon xalifab Cheikhu Tidiane ngeen foog ni bu fekkoon Cheikh mais loolu loolu xel nangu na ko loolu du njàng il suffit tout simplement de regarder de voir de comprendre c'est tout wala yàlla wutal na Cheikh El malik radi radiyallahu taala anhu nga xam ne xaw ma ku ko gën a jub néew ma amul de <laughs> man dama ne xaw ma xaw ma ku ko gën a jub amul bu dee xam parce que itam xam nga nit dañ koy natt ak jëfam. mais kenn du ko natt ak wax yi wallahi mais Seydi Hadji Malick nga natt ko jëfam <laughs> laa damun xaalisun laa yaqdiru alxamla darratan min addayim ka taqoog moom Maodo jàngal ko ba wóolu ko ba mu bind lépp mu ni bu fekkee am na luñ ci war a seet nañ ko ko jox muy Serigne Alioune Guèye moo waxoon loolu ci Cheikh Al Hadj Malick nee na Cheikh Malick deretam ci boppam mo atenu lu tol ni atu mbalu ko gëna a tuuti ci lo xamanteni bi ni gatché la deretam atenu ko moo tax lépp loo xam lu lënt la mawdo du ci duggu lu leer nañ ni maanaam mo mawdo jaaru ci tali de ndax talibi bi nga am fo jadd am delu wat ci talibu mag bi hmm. ci ray bi la aw ben yoon la boko wacce doto dem koku mos fog nga ni dina jël Cheikh Sufyaan radhiyallahu taala anhu ak bakku bim ko bak ak limu mu daj ci tariqam bi xale yi yéen itam nag wax deug yalla war ngeena a xam ni sincèrement lolu nak ça suffit tout simplement comme preuve hein ah wul sax ñu dugg ci xam nga man bis wax na ko fi kéro xale yi ci daara ji ma man dama passé nak fimné tok di lay ci affaireu tariqa bi déet man passé na fofu de ay tok na non non bo boo ci alcorane yalla néna na yonent bi non non non man je suis pas dans ça xam nga lan ma suma wax man naka la ñuy def ba ñu jàpp tariqa bi fonk tariqa bi mën koo jariñoo naka la ñuy def ba ñu ko jàppul gëm ko jàpp ko ba pare ji jëfee ko sax man loolu mooy sama sama liggéey bi foofu la nekk mais di werante ko xamante ni bii ni parewul pour dugg waxam fenn rek la jëm mooy déstabiliser ñi xamante ni bii ni fas nañ yéene dugg ak dugal sikk sàkk ci xelu ñu jot a dugg kooku lan Ahmad Fall loolu lu liggéeyam il faut que ñu xam loolu aussi fu li alaaji di wax rek faut pas qu'on se trompe de cible et d'adversaire mbokk yi loolu mooy dëgg kon nag ma lawraadi tariqa bi lii nga xamante ne bii ni moom moo de xadratul jumaati dama nii ñaq gee fonk ak ñàkk gee jëfi bokk na ci di tax yu bari yu ñuy wax ci tariqa bi nit ñi mënuñ koo gis wax naa sànq nag ni kuy tux bu mu toog ci mbalaan mi man du man maa ko wax de Cheikh Tidiane moo ko wax radiyallahu taala anhu xanaa xam loo ni xataa nit kiy tux masalam kuy tux sax ci tariqa bi nit yàlla yi dañ ci waaw dañ ko dañ ko xaw moytu bu baax seetlu woo Cheikh Tidiane radiyallahu anhu am na benn benn benn muqaddamam benn xalifaam boo xamante ne bii nii daf ko ne yow kuy tux bu ko may werd Mouhamad ibn al Alawi daf ko ne yow carrément kuy bu ko may yow ijaaza bi mu ko bindal daf ko ne yow kuy tux bu ko may werd yow kuy naan sàngara nag mën nga ko may werd waaye kuy tux bul ko may werd xatta ci julli kuy tux ak kuy naan bu ñu dajee kiy naan sangara moo war a jiite parce que ki nan bopam dong lay lor ki tuh ñaata nit la ray mbokk yi il faut ñu xolat mbir yi ki tuh muqaddam bi mëna way werd moy ki nga xamni ni kashfom ag na ci mu xamni ni buma bu ko joxe werd wi dana ci gor lu te bu yagge dana bayyi tuh mi mi tuh su leerul bu ko jox werd lolay deug motax mbir mi mata def ndank motax tax mag ñi bo daan tux ñaare dañuy wax buñu lalé mbalan mi hatta bu dee sax jappo tariqa bi da ngay barkeelu dañ lay wax ne la demal nga tok né ci wét gi rek c'est pas de la discrimination waye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bana xet bo xamanteni bi ni daf koy lor mais dina tax du tew ci barab ana lutax tax bi alayhi salatu wasalaam daan wax ci jamonoom ca ya attention ah alaji. sallallahu alayhi wa sallam ñi mu doon waxal doon naafiq yi de jullit yi la doon waxal man akala thawma aw al basala falyatazil masjidana ku ko yonent bi doon wax ashaabuhu almuminuuna billah ñooñu la doon waxal ne leen ay saabaam ci boppam la ne woon ku ci lekk laaj bu ñorul wala nga lekk ci soble bu ñorul na nga beru bu sunu jàkk ji bu fi dugg lu tax parce que kat gi fay lor Oh, yi wa ah, tourna kon du affaire u qiyaas moo kon nak nañu wat xel ci yoyu dengena ah? nak dem touti dama ni mbokk yi tay dama bëgg ñu waxtaan touti rek ci hadratul jumaati bala ma dugg ci lan moy hadrak yoyu yeb dama wax ni ki di faqihul kansusi ñu xam ko di Muhammad nekk koo xam ni liggéeyam ci tariqa tijaan ak taxawaayam ci tariqa tijaan kenn du ko laam-laami li mu liggéey ci téere ci tariqa tijaan li mu dugal ci nit ci tariqa tijaan li mu defar ci ay nit kenn xamul nu mu toll moom faqihul kan suusi radiallahu anhu moom moo liggéey téere boobu ñuy wax aljawaabul muskit muy tontu li nga xam ni dina noppiloo képp kuy waxati ci tariqa tijaan te la nga cay wax naka su noonu la mo ligay téré bobu mom faqihul kansusi daf daan wax muni gis nga lawrad yi nga bi ni modi lawrad di tariqa bi gis nga li nga bi ni mom modi lazim bi ak li nga bi ni mom modi wazifa bi ak li nga bi ni mom modi hadratul jumaa bi bu fekkoon ni bu fekkoon ni li ñi wax salatul wusta xam nga xaafidu ala salawaati wa salaati al wusta wa qumu lillahi qanitin sunu borom yàlla nee nañu biir julli juróom yi am na ci benn julli boo xam ni moo yanu sekkereb mboole julli yi julli googu lañ tuddee salaatul wusta sama borom yàlla nëbb ko ci biir julli yi ngir bëgg ñu fonk julli yi xam nga sama borom yàlla da koo nëbb xamuñ suba am na ñu ne suba xamuñ baar la am na ñuy tisbaar la xamuñ tàkkusaan la borom xam mu yi lu ëpp ci ñoom li ëpp ci ñoom li ñuy wax mooy tàkkusaan la xamuñ timis la xamuñ gee la salaatul wusta boobu nag su fekkoon am na ci biir tariqa tijaan ci lawraat yi ci diggante lazim bi muy wirdu suba ngoon ak wadifa bi ak xadratul jumaa faqihul kansu si daf ni xadratul jumaati mooy salaatul wusta ci biir lawraati tariqa bi te la kooku laa chak dinaa wax pourquoi mu nekk na kooku moy bu ñëk bi pour ñu bayiko ko xel benen bi ci teggu gis nga bo defé sa wirdu subak ngon samedi def sa wirdu subak ngon dégg nga ko dimanche def sa wirdu subak ngon altine def sa wirdu subak ngon talata def sa wirdu ngon ay wa alarba def sa wirdu ngon al khamis dañ ko ak ah, def sa wirdu subak ngon dégg nga aljumaa dañuy dajalé yoyu yépp wirdu yoyu ak wazifa yi nga def yépp ni nag balañu ñu koo mën caché di ko valider mbete yow mi doon def loolu dañ la seen ci géew ba nga xam ni boobee géew bokkul ak ba nga daan toog di ko jiite yow muy muy lazim bi yaa ko jiite bokkul ak ba nga daan toog di ko jiite yow muy wazifa bi géew bee yonent yàlla Muhammad moo koy jiite ak Cheikh Tidiane yi moom dong moo am loolu ci werdu yi amul beneen bu ko am waaye seet leen yëf kon foofu la jëm xadratul jumaati kese moo am ci mboole bu tariqa bi bu waxtu wi sax bu jote xatta waxtu wi bu jote fa fuqaraa yi ndeysaan mooy ñi jàpp tariqa tijaan wallahi bu ñu dajewul da ngay gis Cheikh Tijaan yi mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw waaw gaa yi fu ñu toll loolu laa chak gaa waxtu wi jot na di waa lu lu lu mel noonu am na nees ca war a taxawee am na nees ca war a doxee mbokk yi xoolal yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam bu waxtu wi jotee moom ci boppam day bokk ci moom muy jiite xadratul jumaa bi moom yonent bi alayhi salaatu salaam yurdu suba ngoon amul loolu wasifa suba ngoon amul loolu de wasifa yonent bi day teew rek te condition yi day daje gis nga jeex na xataa ñun suñu yenn jotaay yi ñu xewal léegi nii yonent bi du teew ci jotaay yooyu jotaay bu nga xam ni góor ñi ak jigéen ñi dañuy jaxasoo nee nañ dañuy wasifa wala dañuy xadaratul juma yonent bi du teew foofu Cheikh Tidiane du teew foofu ah waa baax na da ngeen foog ni yéen saa salama ciy caaxaan na nekkoon wala Cheikh Tidiane moom ciy caaxaan la nekkoon loolu dina leer si si ko salaay salaam doon wax baaidu bayna anfasi rijali wa anfasi nisa na ngeen soreele na ngeen soreele nokkik góor ñi ak nokkik jigéen ñi waxul seen jëmm de mais seeni nooy yi nañuy soreyantoo yow nga dajale ay góor ak ay jigéen nga ne dañuy wasifa loolu mooy affaire tariqa bi moo il va falloir qu'on fasse une indexation du nekk tey nag waaye problème yi nga xamante ni bii nag moom moo nekk ci tariqa bi ba tax ñii yi ñuy am problème sikk sàkk ci tariqa beeg lu tax affaire yi ñu jàpp ko doxul ak dox na dafa am yu ko waral ñun ay observateur lañ ay jàngalekat lañ te li ñuy wax nii du suñu bakkan bii la ñu ko teg lii yonent bee ko wax hadis la sallallahu alayhi wa sallam ku weddi nga weddi ko moom loolu mooy dëgg hmm, moo tax mag ñi mosuñu def loolu lu tax ñun ñu bëgg koo def jigéen ñi nañ leen ber fële bu demee ba mun ta ñàkk te wutuñ fa dara pour mu leer sax nag wutuñ fa dara jigéen ci tariqa bi wirdam wazifaam xadratul jumaam mu defe ko biir néegam biir këram de biir néegam moo gën mu defee ko ca jàkka ja wala ca mbooloo ma moo gën laa wax lii may wax ni bu ngeen deme ci su jawab yi nek ci tariqa tidiane yeb fu ngeen dem fek ko fa bi ci mujj moy bi ñu mujjee laaj si Mahamad Nadifi daf ni won carrément fal haqq kulluhu fi littibaai wa charru kulluhu fi libtida'i ak deug ak wiw mi ngi ci top li yàlla wax yonnati bi alayhi salatu wassalam waye aw ay ak musiba mi ngi ci fent lo xamni yonnati bi alayhi salatu wassalam bayiwuko fi won gannaawam o gis nga alaji lol na leer de bu kenn wax ni man waxuma ko won de okay parce que amna yo xamni ne ay phénomène la ñu diko ko xewal et que ça n'a rien à voir ak ñangalem tariqa bi jaxase ay goor ni ak ay jigen ñu dajalo ni rëncaloo serigne bi ñu naan dañuy wazifa serigne bi ñu naan dañuy hadra lol du tijaaniya waaw mom lay wax une question d'organisation c'est-à-dire man jaxasoo bi laa wax waxuma leneen lu dul jaxasoo bi bu dekkee jaxasoo amul jigéen ñu ber leen fële hadis bi laa wax dama ne baidu cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu mi nga xamante ne bii ni lijtihaad na ci tariqab tijaan bind ci ay tere moom ci boppam xasida la ci def wa baidu ba bay bayna anfasi rijali wa anfasi nisa kalaamun sidquhu matuna na ngeen sorale nokki góor ñi ak nokki jigéen ñi ba noppi ni li ma wax du samay wax kalamun wax la jo xamni sidquhu ak deggo mom wax ji matuna naa texte la yonente ko wax matna na la ah, serigne bi nak bu bul nekk tijaani yi tijaani rek ba tax na nga bëgg def lu la neexit nag déedéet loolu du deug serigne bi ak ku ko def nak <laughs> lol tam na leer aussi bu kenn waxit man waxuma ko won parce que xam nga euh, euh, euh, kat li Cheikh hadji malik dan def dafa am solo alaji. mooy dégager sa responsabilité bu taxaw jotee nga taxaw bu wax jotee nga wax bu bind jotee nga bind su ëllëgee nga xam ne wàccoo nga ak sa bopp wàccoo nga ak sa ay wareef ama def ak ñàkk def gëm ak ñàkk gëm kooku mbiram barom bi la baal noona bu ca dugg jugement bu ca dugg lii mooy dëgg léegi nag ñu dem ma ni jigéen ñi mboole rawraadi tariqa bi kii parenthèse la ñu defe ko seen biir kër moo gën ñu defe ko ca mbooloo ma je dis bien moo gën te moo jaadu si looma nadif yi bañ na ko bi mu koy laay aaya alquran la indi wa qarna fii buyuti kun wala tabarrajna tabarruja aljahilia luulee wa aqimna alsalat wa atina alzakat wa atina allaha wa rasula wa qarna fii buyuti kun mu nañ rëjju toog fii buyutiku na ci seeni nek ci seeni kër wala tabarraj na bu ñu bari tank ak di dox baraj baraji tabarrujal jahiliyal ula comme na jigeeni jahiliya daan def fune nga tek fa sa tank fune nga dugg fa lu xew nga tew ja wa aqimna na borom bi tabaraka wa taala ni jigéen ñi na ngeen di taxawal julli fan fii na ci seeni bir neeg ya wa atina zakat même azaka bu ngeen koy joxe na ngeen ko génnee fii buyutiku na ci seen bir neeg ya wa atina allaha wa rasula na ngeen di sax ci di topp yàlla ak ndawam ndawam la waaye fii bu ku na ke seen néeg ya lii mooy dëgg ci diine kon am na yoo xamante ni bii ni nag bu fi kenn dikk di fi wax ay ay ay leneen ak di fi indi leneen ak ku ko mënti wax ak ku ko fi mënti indi itam wax dëgg yàlla du tax mu dëppoog li nga xam ne moo di njàngaleem yonente bi alayhi salatu waaye it du tax mu dëppoog li nga xam ne moo di njàngaleem Cheikh Tidiane ak i jëfam parce que il faut aussi alaaj nga bàyyi xel benn affaire gis nga Cheikh Tidiane dund na ba génn adina loxom bi mësta tegu ci loxo jigen waaw loxom bi mësta tegu ci loxo jigen motax hmm, nañu bayyi xel ci yoy de sëriñ bi ñun nak yi ñi yi ñi yi ñuy woyofal ni léegi kilifa yu gëna mag ngay gis ci tariqa tijana ah, ci bir mbolo yi ñu jox loxo jigen ña ah. di ko gis Sadio hmm, man je dénonce ko mer ya xam ngeen balma parce que dafa am xamanteni bi ni xalé yi il faut ñu wax leen li xew lan la manam gis nga laaji njit dafa metti xam nga lu tax mu metti no xaar xam nga lu tax metti xam lu tax mu metti parce que bëri na loo xam yow soko ko dañuy defee ni deug la fekk nak du deug serigne bi nak ay way serigne bi ko xamni du sa ko xarmal du sa soxna dégg euh, publiquement euh, même lu dul sax publiquement seere di ko jox ay loxo di akolaatante mi mi mi ba pare bëgg ko dugal ci registre diine loolu du dëgg wax dëgg yàlla waaw ah, loolu yonent bi alayhi salaam daf ni dafa xaram loolu mooy dëgg looloo tax Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ki nga xam ni moom moo di royukaay bi moom ci boppam daf ni woon loxom bii masta tegu ci loxo jigéen ma massa yadahu yadam raati dem leen ci taa'iya bi Sidi Mahamad Nadif yi nii la ko waxe maa massa mësta jonjoo yadahu loxom ba moom Cheikh Tidiane massa yadam raati ak loxom jigéen sëriñ bi man bu may wax loxo jigéen da nga foog ni loxo jigéen yi ci mbedd mi ak ñi xatta ay soxnaam daaw leen jox loxo parce que jàngalekat la Sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu xatta ay soxnaam daaw leen jox loxo xatta ay doomam daaw leen jox loxo parce que day bañ keneen rax ci mu joxaale ko loxo moytu loolee sax moo tax daawul nangoo jox ay doomam loxo moo tax mbokk yi nañu delloowaat mbir yi ci originalité ba nga xam ni seeni boroom noonu nii lañ ko daan doxalee su fekkee nag bëgg nañu yiñ ciy wax ñu jot ko aywa léegi nag xam nga xadaratul jumaati mbokk yi dafa am nu muy tëddee bisu aljumaa lay nekk mënul nekk beneen bis bis budul aljumaa kooku benn critère la ci amul beneen bis buñ ko mën def kooku mooy bu njëkk bi beneen bi ci tegu mooy dafa am waxtu lahu yawmu muayyan wa waqtu muayyan dafa am bës boo xam ni boobu bés rek lañ ko mën def muy bésu aljumaa naka noonu itam dafa am waxtu woo xam ni ci lañ koy def mu diggante tàkkusaan ak timis waaye balaa may sori foofu gis nga même diggante takku saan gi ak timis gi charte la ci xadratul jumaati moo xam kenn ki koy def ci biir këram la wala ña koy def ca mbooloo mala charte la ñu jokkale ko ak timis gi waaw waaw même yau yau yow yow kenn yaa koy def xaaral ba mu wóor ni la yow bi ngay sa ilaha illallah allah ak juróom benn allah allah ci ñenn ñi koy jàngee nonu. lolit dina dinaa ci ñëw mu wóor ni la diggante bi nga def soo paree rek kabar timis Nonu lañ koy idef. xadara dafa am kayfiyatu istimaal dafa am nu ñu koy defe waaye duuni jul naa sama tàkkusaan rek doog def sa junni la ilaha illa allah pare def sa allah allah tëj ñaan jóg dem déet loolu du xadara charte la nga jokkale ko activiste ki mbooloo werdu yow kenn yépp charte la ca ñu jokkale ko activiste gi loolu mooy dëgg loolu kooku critère bu am solo la te lu mët a bàyyi xel la parce que dama ko yàgga dénoncé ni len ay way lillahi wa li rasuli nañu bàyyi Hadratul juma yi ñi téla dag ndax ay ñaan ñaan yu kilomètre yu xamni san n'a rien à voir ak hadra bi ban rapport la ñam ñu ñaar fan lañ ko bind ci téré tariqa bi fan ñaan mën na passé tok di wax la ilaha illallah ñaan mën na passé tok di wax allah allah allah ñaan mëna naa passé loolu mukk ci adina mënul nek c'est possible yonent yépp la ilaha illallah len yalla joxone ku ci jaxlé mom ngoy wax nit yalla yépp ku ci sa tariqa wir la ilaha illallah mo ci dugg il faut ku ñu wax nit ñi li xew lu mu hadar mari la na ci ñaan mag ñi seen ñaan dawul wasé dawul passé bu bare ba bare 1 minute te ken dawul dégg li ñi wax man ñi ma nettali ñooñu alaaj danoo fekke de maanaam du ñu ngi xamante ni bii ni dañ leen nettali dañoo fekke ñoom daan tooganoog suñ Babacar ci mbalaa ni wasifa ah. daan dangaa mos a dégg ñu la lii ñaanu wasifa la bu nga xamante ni bi ko kii suñ Babacar mooy ñaan booba technologie am na effectivement ci iid gi mu taxaw di xutba parce que mag ñi seen jamono dafa am loo xam ne daawuñ ko def mooy li ma la wax faut pas qu'on se de cible xadaratul jumaa cible bi mooy teel a ñëw cible bi mooy jàng baatu laa ilaha illa allah cible bi mooy jàng baatu allah allah mais cible bi du bu ñu pare rek dëpp la micro yi ngay ñaan ñaan boo xam ni ay 15 minutes 20 minutes pourquoi et au nom de quoi ak fan lañ ko bind ci tariqa bi Cheikh Alhaaji Malick bi muy wax lu leer naññ la wax maa ngi ñëw li mu wax lu leer naññ la daf ni nanga nga takkoo di ñaan gannaaw boo wirdee ba noppi wirdi la wax wala demi duaa baadal wirdi laala ma tasilu duna tardi waxul wadifa waxul xadratul jumaati na nga di ñaan baadal wirdi laala ma tasilu jombul di nga jokkook yàlla duna tardi te kenn du la dàq foofa sëriñ bi mooy dëgg il faut aussi ñu bàyyiwaat xel ci yi nga xamante ni bii nii mi ngi am te dëppoowul ak mu war a amee waxuma ni ñaan baaxul je ne dirai jamais ça wallahi xam nga lan laa wax ñaan yi daa gudd xam nga lan laa wax ñaan yi day tax duñu mën a remplir condition yi nga xam ni moom la tariqa comporté moom la xadaratul jumaa comporté condition yi daf ci bokk xadaratul jumaa dañ ko war a jokkale ak timis gi mais imaginez nga dagg xadaratul jumaa bi 30 minutes wala vingt minutes avant ngir dugal fa ñaan ku la ko fa dugal kan ñaan mu dem rek ñuy tawi amin amin amin loolu mooy lan te et puis jël nu mel ni dëgg la sëriñ bi war jàng laa ilaha illa ba timis ki des ñetti minute mu wóor ni ñu suñu tëjee ñetti minute yi ciy des ñaan jàngi tuuti rek ñu raayoo noddu ñu julli lii mooy dëgg waye pare hadi hadiyatun judul jeex hadi hadiyatun fan hadi que hadiyatun ko yamale ko ci wasifa yi bi waxtu timis dafa du ci ay tiaxan mais ñaan ba waxtu yi passé nga kon di ñaan ba mujj dañ lay wokk dila dag pour lan te ku ko wax nga mer mer leen gis nga dafa am xamanteni bi ni suñu bëggee li ñu yor faw nak ñu dello boom yi ca boy boy ba moy lan lu ci ne ñu ko na mu tuddu seet lamu mu yellool ci teggin ak i warteef ñu def ko ca sëriñ bi loolu mooy dëgg de kon nag dama ni xadratul jumaa bisu aljumaa rekk lañ ko mën def waxtoom mooy diggante takkusaan ak timis moo tax ñenn ñi di ko tuddee zikrul zikru asril jumaati ñenn ñi di ko tuddee asrul jumaati ñenn ñi di ko tuddee xadratul jumaati léegi nag dafa am benn Euh, bunt boo xam ni bu ma yeboo ni euh, Cheikh El Hadj nga xam ni ci ñu mujjee def ay ubbee ci tariqa bi ci la bokk def na ko ci xadaratul jumaati mais nag daf ko tënk ba mu ëpp te téeram bi di faakeetu tullaab maa ngi ci bàyyiloo xel euh, ñi nga xamante ni bii ni ñooy borom xam-xam yi ak ñi nga xamante ni bii ni ñooy donga daara yeeg ñi koy jàngale yëpp rek de manière générale ñu gën ci defaat euh, ay taxawaay ak gëstu xam nga lu tax téere la boo xam ne baat yi dafa yomb firi mais maanaa yi dafa lëmu dafa làqu te baat yi am na ci baat yoo xamante ni bii nañ koy firee wuute naa ak bam koy bind lam ca jublu loolu il faut que ñu bàyyiwaat ko xel te dina leer ci bind bii nga xamante ni bii ni moom la jëmale ci xadratul jumaati léegi nag boo seetee bunt bi moom la tuddee woon mi wa minha dhikrul kalima al musharrafa baada asri yawm al bokk na ci lawraat yi ñu war a taqoo ci tariqa bi bokk na ci baat bi nga xam ni mooy baat bu tedd ba lu lu tax mu ni baat bu tedd ba lan mooy baat bu tedd bi baat ba baat yi kat moom sëñ bi yu tedd bari na waaye baat bu tedd ba yamale ko ci benn baat mooy ban baat baat bu koy ba mooy ban baat aham kay mooy laa ilaha illallah xam nga lu tax gis nga fii mu ne kat alquran jii li muy yaatu yëpp wax nañ ni ay wa 66666 66669 60 bari na ay ay aaya alquran la hmm. gis nga aaya yooyu li muy bari bari saari alquran yi nekk téeméer ak fukk ak ñeent baati alquran yi bari lool Harafiku yi ko bind bare lol tomb yi ci nek bare lol waye gis nga ànd ak Al yëpp alquran ji ba mu daj aya alquran yeb ak saari alquran yeb ben bat dong lañuy gungé gunge bat lañuy gungé muy baatub la ilaha illallah kep jeexna amul benen bat buñuy gungé gunge bi bat bobu yow ak yalla ci bokk yam yow ak yonent bee ci bokk yam yaa Cheikh Tidiane ci bokk yam tane wala ci bi ah waaw ba ba Cheikh Tidiane di wax benen baat bu la ilaha illallah ba xam ba keroog yonent bi di wax benen baat budul la ilaha illallah ba xam ba keroog yàlla ci bopam di wax benen baat bu la ilaha ala ah, lo fok da nga fok ni yalla da xey rek ni ñu wax len ni la ilaha illallah ah. déedéet sans borom yalla du defé non wala ji mom ci bopam mom borom bi mo ñëk taxaw ni la ilaha illallah waxul la ilaha illa ana de laa ilaha illa borom bi ci boppam moo ko jëkk wax loolu loolu loolu caaxaan la dangaa soxla dalil ah borom bi newul shahida allahu shahida seede na nee na ashhadu allahu buur yàlla ci boppam moom moo ni ashhadu annahu li mbir tey mbir laa ilaha amul buur bu mooy moom kon yàlla njëkk a wax laa ilaha illa allah doo ko wax nag wal malaayikaak wa ulul ilmeek qaiman bil ba pare takraar baat hu ah waaye foofu duñ fi taxaw waaye wallahi kooku boo demee ci aarif rabbaani bu ngeen ca duggee rek mu dimbali la ci wàllu yàlla kooku laa shakk wallahi yàlla xam na ko ci shahida allahu annahu laa ilaha illa hu moo tax bat baat bi ñuy yare nit ci walu yalla dana ci ñew ci jumaati legi bu soobee yalla legi nak mani bati alquran yi ak sari alquran yi bat bi jang jàng ñun bu def hadratul jumaati pour ñu xam li def dayo bi mu am bat bobu bati alquran yeb ak sari alquran yeb mom dong lañuy gungé lani quran la yalla ko wax borom bi mo wax ci suratul qital wala suratul muhammad مني ننتبه عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله جانا بن ين بوب لكو يالله وقت القرآن فاعلم قمل نلا لير أنه لي مبير تي مبير لا إله أمو البور بن ورجامو إلا الله بوما يبور يالله motax gis nga baat bobu yonent bi alayhi salatu wassalam wax ca lam ca wax dana ci ñëw tuti waye balay lolu dam leen defal ben résumé bu gàtt rek ci li Cheikh Alhaj malik wax jeme ko ci hadratul jumaati bokk yi mam Maodo def ni waraaciyanna dikrana almaaluuma fi casri jumcatin takun calima ويقرأ الواحد بعد العصر في يوم جمعة بكل عصر كلمة لا إله إلا الله أو الله الله كليهما رووا مني ركواي ديسان بو سيتي بار بي صاح ديغا خامني ني مو تامبالي ميغ لاي سونجو دي ميغ لاي انكوراجي دي ميغ لاي انسيتي كي لي موي بغا واخ خولال ci terme utilisé Warai, xëy peut-être que vous dana touti ndax vous bi dem waye daf ni wara'iyan yan na mu ci yok yan na sens bu mo am sens bi xam nga moy lan mm-hmm. incitation la ah. daf lay insister looloo waral mu ni waraa yan na rikk waay rikk waay góorgóorlul waa jile rayanteel takkul ba sàmmonte bumu la rëcc mukk ko waaw lu xew ak lan la ñuy rayante ak lan la ñuy sàmmonte mu ni zikrana suñu tudd ga yàlla suñu tudd ga yàlla suñu tudd ga yàlla almaaluma badi bu ñu xam ñépp a ko xam na nga moom de nga ni ko waaw kañ la ak naka la mu ni fii yow mi jumaa laa wax ci bisu aljumaa mu nekk une précision de taille mu des beneen nag nga ni ko waaw léegi bu ma sàmmoon teg moom luy xew muni bala dara kay ndegam man maa insister que persister ci nan la na nga suñu tuddu ga yalla ci besu aljumaa dafa am lu tax ma wax la ndax dafa am lu lazim amut am lu wasifa amut moy mom boko takko samonté ak mom takun da nga nek laa ni muy jawab ja aliman ay arifan billah di nga nek ko xam yalla wa léegi la motax Hamga ngay nekk xam yalla xam nga bo démé ci muhammad ibnu ashiri ci téréem ba <laughs> daf ñu waxon muni wa qawlu waxul wa kalimatu de hmm? wa qawlu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu lilahu yajmacu kullu hadi almaani lida kanat alaamata alimaani gis nga li jëm ci wàllu tawxid ak lañ cay jàng ci ay pas-pas nit war jëm ci wàllu lislaam li ci nekk ci pratique nit war ko def li jëm ci wàllu liimaan nga xamante ni bii ni nit ki dafa am yoo xam ne danga ko war a gëm gëm yàlla gëmi malaayikaam gëmi téeréem gëm bës penc gëmi dogalam yu jëm ci yooyu yëpp gis nga soo boolee ñetti yooyu ak lañu comporte yëpp dafa am benn baat boo xamante ni bii ni baat boobu moo leen synthétiser moo leen tënk muy baatub laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah moo leen tënk di motax mom daf daan wax muni wa qawlu la ilaha illa allah jëmmi wax ji ngay wax la ilaha illa allah muhammadun arsalahu l ilah jëmmi wax joju la ni yajmau kullu hadhihi l maani way muy maanaa sens yi nga xamanteni bi ni mo nek ci lu jëm ci pratique l'islam bek tawhid bek nuñ koy waxe l'ihsan bek yeb boko bolé la ilaha illa muhammadur rasulullah moko tank liza lisa tax kanat mu nek alamatul iman di mandarga mi nga xamni moy tax ñu ne diw gëm na yàlla attention fi mu ne tay kat xolal boroom xam-xam yi àgg nañ ci wax ni ki bëgg a dugg ci diine bu ne laa ilaha illa rahman duggul duggagul ci diine xam nga lu tax du kalima bi du baat bi sëriñ bi baat bi daa am nu mu bindoo <laughs> baat bi ni mu bindoo mooy laa ilaha illa baat bi warul changé munoo wax laa ilaha rahim moo ne li nga wax dëgg la de waaye du tax mu valable de la ilaha illa al quddus du tax mu valable de la ilaha illa illa xawma lan illa zul jalali wal ikram du tax mu valable de la ilaha illa sabuur du tax mu valable de la ilaha illa allahu rek nga mën a wax ndax dañu wax ni baatu allahu moo di sirrul islaami moo di miftaaxul imaan yi baatub allah mooy secret bi ne ci lislaam waaye baatub allah mooy secret wala li nga xam ni moo maanaam li ñuy wax ngëm yàlla li nga xamante ni bii ni moom moo ko caractériser mooy baatu allah ndax mënuloo wax laa ilaha illa rahman ba mu valable ñu ni gëm nga mënuloo wax laa ilaha illa rahim ba mu valable ñu ni gëm nga lu mooy ni da nga ni laa illa allah bokk baat boobu nag nga xamante ni bii ni yii yëpp wax nan ko ci ñun bu nu toogee ci xadaratul jumaati moom la ñuy jàng li ay la nañu seetaat yëf ngeen gisee wër lo bi yépp dara waralu ko dafa di dama dama dama gis tay li xew wa ni ñu bëgg jappé hadratul jumaati sëriñ bi loolu mënul dem c'est pas possible ay ponkal ay gur, toksin seen biir kër wara dem ci jakka ji wara dem ci mbolo mi tok jang hadratul jumaa bi tok bu heure bu len neex nan hadra luma ma ci am baxna loolu ku koy wax genn nga ci tariqa bi te ken génnewu la ci ya ci genné sa bop parce que ya wara dem ci mbolo ma te demo ci mbolo ma ngant xam nañ ko waaye na nekk ngantal diine waa ji dafay liggéey suturaam ci la nekk teraangaam ci la nekk Cheikh Tidiane néewu ko bàyyi liggéey bi dem ca jàkka ja de même bu ko bàyyee aqidaam tax mu bàyyi ko pas-pasam tax mu bàyyi itam yàlla mën na ko caa fekk mais santuñ ko loolu na dem ca liggéeyukaayam liggéey bu waxtu wi desee quinze vingt minutes nga xam ne dina fi mën a jàng lim bi mu war a jàng mu jàng ko tasanteeg timis gi jot mu julli buy wàcc ñibbi wàcc ñibbi sëriñ bi tariqa bi jafewut mais xam nga lan lañuy bañ cof gi ak ciofental gi waaw bo mom du jall bu ko defé nak ñu dem tuti mam Maodo anhu muni rik way wara'iyan na yi seen maam di mo wax ah, te yaakaar xam ngeen ni eh, mam Maodo taala anhu nekul nak ku am jot gu tollu ni tok rek di capp mam di bind ni rek pour rien du tout xam na li xew gannaawam ndax wali yu yi yalla tegal jamono nam wara doxek nam wara tedde mom ci la bokk ndax ku wara joyante jamono nek mu jëddit sama borom yalla mo lay xamal jamono jangal lako la ca aju yep ci yakku yakku mu xamal lako avertir la ca ba yow nga meuna préparer wu en conséquence motax bokku na nak ci limu nu préparer wara yanna dik way na ngeen sambo na nga samonté yow talibi bi zikrana ak suñu tuddu ga yalla al ma'luma badi buñu xam fi yawmi jumaa ci bisu jumaa kon amul benen bis buñ koy def boko defé nak takun di nga nek aliman diko xam yalla ñu niko wax waaw naka lay démé légui xam nañ bëss bi d'accord exhortation yek incitation yek persister bek yep alhamdullah rabbil alamin deg nañ ko hmm? légui li ci des xam nga moy lan légui nak euh, waaw waaw ala liñuy ñuy wax mode d'emploi quoi c'est-à-dire naka lañuy défé hadra kayfiyat istimal bi muni wa yaqra'u na jang dang koy firé nonu na al wahid ken mo xam ku am ngant la wala jigin bi ne kërëm moy kenn ki dé akay na jang ba'dal asri gis nga gannaaw takusan, muno jang muno ko jang avant ba pare fii yow jumaa gis nga ni mu ko repréciser encore gannaaw takkusaan ba pare encore ni fi yow mi jumaa je dis bien ci bisu aljumaa bi kulli asri ci bépp jamono nag amul ajuma bii nga dem beneen ajuma <laughs> tëb ah, déedéet kenn moo xam góor la te am ngant wala jigéen la te war ko defee këram kenn kooku dafay jàng lan lay jàng Cheikh Al Hadj ni kalimata laa ilaha illa allah aw allaha allah ndax kilayhima rawaw na jàng kalimata laa ilaha illa allah baatub laa ilaha illa allah ok foofu nag la wax ji ne nag xoolal na jàng baatu laa ilaha illa allah mbokk yi yenent bi alayhi salatu wasalaam moo waxoon ca làmmiñam ni eh, eh, eh, afdalu ma qult ana wannabiyuuna min qabli kalimatu laa ilaha illa allahu li gën ci li nga xam ni tudd naa ko mu bawoo ci sama làmmeeñ man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax yonent bi lu mu mës a wax lu baax la waaye ci biir lu baax loolu nag bi ñu leen concourir benn bu ci nekk ñu seet ko par rapport ak moroom ma laa ilaha illa allah moo jël raw gàddu ga moo tax mu ni afdalu ma qultu li gën ci li nga xam ni man yonent bi wax naa ko ana man laa wax <laughs> man dama defee ni gars yi duñ bàyyi xel ci la yonent yàlla Muhammad di waxee afdalu ma qultu rek daa doyoon di waaye dafa ni ana man laa wax waxuma keneen li gën ci li ma wax wa nabiyuuna min qabli ak yonent yi yàlla yónni te ñu jiitu woon ma ñu la gën ca lanu wax moy xolal waxu la ilaha illallah de parce que bu do la ilaha illallah kon su boobaa meun nga soppi bat bi sens bi dess fi ta su boobaa dana valable waye dafa indi terme kalima manam kalimatu la ilaha illallah moy batu la ilaha illallah c'est-à-dire kon terme la manam la ilaha illallah kenn mënu ko changer la ilaha illallah képp nga meuna wax motax yunus yonent bi alayhi salaatu dugal ci batu kalimatu la ilaha illallah wa ma arsalna min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana sama borom yàlla nee na ci alquran amul lenn ndaw loo xamante ni ni yónni naa mbala ma yabal ko lu ni danaa ko wax yu ndaw la ci ni amul buur buñ war a bu mooy man yàlla yonent yépp baat boobu moo leen indi woon ci kaw suuf yow nag ñu tànn la bis bi gën ci bis yi muy sangu bis yi di sayyidul tànnal la ca bis boobu di bisu aljumaa lan lañ la ca tànnal waxtu wa nga xamante ni bii ni laam-laamee wuñ ñi mooy saa alijaaba ndax te ko waxoon aljumaa am na ca waxtu woo xam ni ku ca ñaan yàlla yàlla nangul la boroom xam-xam yi àgg nañ ci ni diggante tàkkusaan ak timis la yow tànnal la bis bi tanal la waxtu nangu ñaan wa ba pare tanal la ca baat bi nga xamni ni gën ci mbolé baat yi yonent yalla muhammad massa wax nga nan da ngay tok ci kër gi nan luma ci am baxna c'est parce que xamuloo loolu lan c'est parce que xamuloo lan la te bu doon fuñu kenn du fa c'est quoi ces manières là hmm? ah nga xamni kon jamono fa mu jëm kon jàngalekat kat war wara takku taxaw nak takar ko nak tamu jaral len lu neet nak wa kay dégg nga mam kalimatu la ilaha illallah mana maanaam la ilaha illallah ngay jang aw wala bok wala wala nga jang allah allah li moy liñi hadra xadara bëgg togg ci bu jeun Cheikh Alhaaji Malik ni jeun nak ci ba koy togg ak jeun ak diwlin akum ndox jeexna Nyambi. serigne bi xoolal ñam bi su ko may ak yi ci dess yëpp lolu am nañ benen taxaway waye buñ ci ñaké du té mu doon est-ce que nga sama wax am na beneen bu ci ñaké it du té mu doon bu jeen Hmm? ok dina ñew ci lolu moy lan maam Maodo batu la ilaha illallah kenn ki def hadratul jumaati mom lay jang wala allah allah allah wala allah allah bu la nexé nga ko kalimatu la ilaha illallah moy batu la ilaha illallah aw allah allah ak allah allah nga bolé len ñom ñaar jang bi su yeggé nga tek ci bi mu ni kilayhima bu mu ci ñaari baat yii muy baatu laa ilaha illa allah ak baatu allah allah rawaw borom xam-xam yi jàngale tariqa bi solo nañ ko solo nañ ko mooy nettali nañ ko bind nañ ko yaxal nañ ko c'est écrit noir sur blanc léegi nag euh, mu des lim yi <laughs> euh, Maodo radiallahu anhu c'est-à-dire il a été très clair avec nous et très précis très explicite wax na bis bi muy bisu aljumaa wax na waxtu wi ak la ca aju waxtu wi mooy takku tàkkusaan ak timis wax na ne xadaratul jumaa du lu ñuy rate xadaratul jumaa du lu ñuy foyee xadaratul jumaa du lu ñuy caaxaanee moo tax mu indi baatu waraayan rikk na nga sàmmonte indiwaat bi kulli asri ci bépp jamono du lu ñuy jëlal njàngale mi leer na lan lañ ci war a def nag mu ni laa ilaha illallah wala allah allah léegi nag mu des ban lim lañ ko war a def ak lim yi naka lay varier ci ki nga xam ni dafa toog ci këram ak mbooloo mi koy def naka la war a demee léegi nag ñu jëm foofu nag gis nga limu ni euh, kadhalika al bada bil itmaami wal xatmu bil ifraadi da ihtimaami nañ bàyyi loolu ndax xam nga boo demee ci euh, euh, iraa iraa bi nga xam ni Seyd Xasanul Baaqili رضي الله عنه موكو ليغي ديسان ماغي ني دنج تي مقبره الغفران تي كازا يالا ديفال نما توفيق دمنا با تي موم زيارهكو كو كو كو يالا ديمبالي ني نونو موم تيري بيمو بيند تي طريقه بي توديكو اراءه تيري لا بو خاندي ماغ نييب كو فونكون غيس نغا تيري بوبو خام تربيه طريقه بي فوك الاك ميك danga seet téere boobu nga toppatoo ko nga lijjanti ko nga yër ko te jéem koo xam wa illaa doo wax ci tarbiya tariqa bi lu wér c'est-à-dire loolu moom c'est ça c'est non négociable nisabu rahmati rabbaniyati ak iraa bi nga xamante ni bii ni Seyd Xasanul Baaqili yi moo ko liggéey nga ni da nga bëgg a nekk murabbi ci tariqa bi da nga bëgg a jàngale tarbiya ci tariqa bi nga ni liiruloo ko ah tey nga wax lu la neex ma sonn xëy mënul nekk ndax yi ñoo jàngale tarbiya tariqa tijaniya bu la neexee nga boole ci tuuti rek tasfiyatu suluki ila malikil muluki day gën a saf nag <laughs> wuu waaw booba day gën a neex moom ñoo jàngale tarbiya tariqa ah, bi ah waa jile sëriñ bi gis nga alaaji lu ci ne nañ ko tudde na mu tudd mani nag boo demee ci iraa sidi xasnul baaqili baat yi cheikh alhaaji malik di wax ni da ngay jàng baatu la ilaha illallah wala baatu allah allah léegi yow taalibe bi jàpp tariqa bi léeg-léeg nga ñàkk jot walla nga amee ngant mënoo dem ca mbooloo ma fa ñuy xadara nga ànd ak ñoom ca nañuy xadara léegi nga digg ci sëriñ bi ni ko man damaa bëgg a jàpp tariqa bi jàpp naa tariqa bi waaye nag eh, eh, eh, bi wax dëgg yàlla a ajuma bii passé dama ñàkkoon jot ba xawuma xadara góorgóoru naa dem ca mbooloo ma waaye bii di ñëw damay ragal ni ay ca léegi naka laay xadaraa da ngaa def da war a toog noonu rek di xadara yow da war a toog rek yow ni noo damay toog rek yow nga jël sa lim di jàng ah déedéet warul tëddee noonu déedéet du tëddee noonu loolu du lu ñu wax ci tariqa bi xadara boo ko defewul ca mbooloo ma sëriñ bi la may werd ci boppam nga war a dem ci moom bu matee murabbi laa wax moom ci boppam moo la war a wax ni la yow allah allah nga war a jàng wala laa ilaaha laa nga war a jàng moo tax boo demee si xasnul baaxil noonu la ko waxee ba xadaratul jumaati baat bañ ca war a jàng budul ki koy jàng ji ca mbooloo ma loolee manquulun an idnil murabbi nii la ko bindee manquulun an idnil murabbi man damaa amee it mënuma toog lu yàgg wala man damaa amee biir buy daw dafa ma sonal ndax yéeg nit a ànd dem naa ci murabbi bi gaaral naa ko ko mu ni ma baax na ci kanam nga ñëwaat bu ma ñëwaatee mu seet sama ruu station bi mu toll ndax laa ilaha illallah ca gënam allah allah moo ci gën parce que murabbi bu xamut loolu bu mu sonal nit ñi na baax waaw na baax loolooy dëgg hmm. ah ndeysaan waaw waaw waaw waaw ah mii de radiyallahu anhu jamonoom boo ñëwaan daan jël werd bay Seydi Jamil Seydi Mahamadul mustafa jamili Jamil ya. yi taala anhu bi bo ñewan ci mom daana tok dir nak wax deug xol lu yag ci kaw wat ni deun ndax dafa bari won ak nopi ya, bu yagge nga gis mu seggat lu yag ci kaw wat ni deun bu ko defé ñetti yoon bu waxul danaan la xanaa ma ñaanal la rek ba ëllëg nga dellu siwaat waaw waaw sëriñ bi mu rab yombul de léeg-léeg nag nga ñëw rek nga taalal ko sa loxo mu ni dënn ba yàgg ni bismillah taal di tàmbali nag moom ku sawaroon ci liggéeyu tariqa bi la ku ci liggéey lu rëy la tàmbali ci Eh, eh, tariqa bi dugg ci ak noonu mu daan waxe rek <laughs> wallahi ndaysan dugg ci charte tariqa bi li wax ci wax yu yeme waxtan ak yow ci tariqa bi ba yow ci sa bop fi nga tok da ngay mandi mu sok la jox nak tariqa bi nak daana defé nonu motax gis nga mag ñi yalla dimbali na len te nak dal xol xolam yoy du won dara dafa am xamanteni bi ni bindaguñu seeni tour ca Euh, loolu ñu tuddee registre tijaani yéen yi moom bëggulaa jox noonu rek foog mu seet li lijjanti ndax sa tur mi ngi foofu su fa nekkul nag comme moom daf fi nekk pour loolu mu négocier ko rek ñu bind sa tur foofu moo waral léeg-léeg mu naan demal ba suba Cheikh Omar noonu la daan def Cheikh Omar radiyallaahu taala amul ñëw nii tey mu jox la tariqa bi tey Cheikh am na ñoo xam ne ànd nañoo moom ba dee joxu leen tariqa bi daf ni ñi li gën ci ñoom moy ñu waral leen fas ñu jihad fi sabilillah parce que murabbi la subhanallah cey waji lay mom dal daal yëf yi daal da ngay jaxlé sax ta bay ci jëmi dal def lolu motax sank sànq ma ni gis nga mbiru hadratul jumaati koku man kuuduna ala idnil murabbi manam ki nga xamni mo lay yar ci walu yàlla mom bu fekke ni yow dem ci mbolo ma da nga wara ñew ñëw ni ko man kat dama wéré di dem ci mbolo mi bëggon nga sétal ma ndax allah la wara jang wala la ilaha illallah laa wara a jàng c'est-à-dire damay wax démarche bi ni mu wara a li moy dëgg ci tariqa dëgg ko dé ok légui nak mu dem rek Mama orang nak ni alfan li sitti mi gis nga wax bi mu ni alfan li sitti dang koy delo ci waxam bi mu ni won wa yaqra'ul waaxidu ba'dal asri kenn ki tok keur mo xam jigen lam góor la gu am ngant demul ci mbolo ma kenn koku day jang lan alfan junni li sitti ak jurom benni temer ci batu la ilaha illallah wala junni ci la ilaha illallah ak 600 ci allaha allaha waye lolou yit day fekk nga jele ko ci ndigeelal ki nga xamni mo lay tarbiya ci walu yàlla na leer de manqulun an idhn al murabbi manqulun an idhn al murabbi manqulun an idni almurabbi moo tax sëñ sëñ Babacar ba wax lu leer la wax bushra li axidi hada alwird waaye salik assaalik salik man salik liman lahu murabbin kiy soobu ci yoonu yàlla nit du sóob boppam dañ koy sóob kon ki lay mooy ki lay yar ci yàlla moo waral borom taayiti suluk ila malikil muluk daf ko daan wax fala budda min fikrin wa ñàkk min fikrin ci foo toll di xalaat tey xalaat yàlla ak la yàlla bind wa dhikrin ta ñak fo tollu ngay tuddu yalla wa wijha ta ñak fo tollu nga jël sa énergie yépp jëmele ci yalla waye lolu bokay def doko def nirek rek parce que Ahmed Fall da nga bëgg gor gor rek tax nga koy def de dedet ala yadi shaykhin da ngay jaar teg mu tegu nak ci loxo serign bo xani aarifin aji xam la bi tariqati chayon wa serign bi lolu moy deug jeex c'est simple da nga febar nga yalla mik yaay fac sa bop amulo aptitude amulo compétence amulo dara ah baa doo gaañ sa da ngay dem ci ku xam lila la dal lan la mu def diagnostic bi set ban médicament lay prescrire mu bolé lak ñakoy jaay nga dem jënd ko mun leen ni nga koy jëlé sëriñ bi li moy dëgg dé ah wa baxna nañ ko nekk ci def ni rek du du soté ah ok ba nak kenn ki tok kërëm dina wax nak après nuñ koy jàngee lol dinañ ci ñëw mais damay indi bat yi ak lim bi wa yaqra'u day al wahidu kenn alfan li 600 junni ak juróom benn téeméer legi nak bu dee mbooloo la nak mam Maodo ni déet déet déet déet mbooloo nang mom li gën a moy duñu jang lim donte nag am nañu ubbee ci tariqa bi ni mbolo dañuy jang lim wér waaye Cheikh El Hadj Malick ni li gën a lëng boroom xam yi ëpp ci tariqa bi ubbee moo di wa taqra'u jamaatun min gayri addin yuqra'u moo tax sànq ma ni nañ def ndànk ci baat yi muy indi parce que gis nga baatu wa taqra'u jamaatun min gayri addin yuqra'u baatu taqra'u ak yuqra'u bii nii jotee wuñu dara da ngay wax ni wa taqra'u dina jàng jamaatun mbooloo باتو لا إله إلا الله ولا باتو الله الله ولا لا إله إلا الله أك الله فاسقي بوفا دمي زاوية شيخ جان بني حضرة أمول الله لا إله إلا الله رك لني جانج ها أمول الله جيس نقول دي مودا دا ngay wax ni wa taqra'u dina jang nak jama'atun mbolo min duni addin ci luddul lim bo xamni xolal yuqra'u dinañ ko dajale bul wax dees na ko jàng de yuqra u dinañ dees na ko dajale parce que yuqra u bii mi ngi jóge ci xaraa xaraa bi nga xamante ni bii ni bokkul ak xara ah bii firi jàng na xaraa li muy firi mooy dajale na fi mu ne ci arab boo ne xaraa alxawdul maa xaraa dajale na alxawdu mbalka mi almaa ndox mi bokkul ak xaraa bii firi jàng na donte baatub xaraa jàng maanaam dajale ngi ci Hmm? hmm? maanaam dajale mi ngi ci hmm, parce que li ngay jàng da koy dajale doog ko mën a takk hmm, hmm, moo tax quraan ñu koy firee quraan mooy lu ñu dajale lu daj xam ni bàyyiwul dara wa quraanan faraqnaahu li taqraahu kon démb dañ koo dajale woon tey lañ ko teqale di ko wàccee pendant vingt trois ans teqat léegi ak dajale gi wala ba léegi déggoo ma ahan kay lii rek la léegi nag mu ni wa taqra'u dina jàng jamaatun mbooloo min duuni addin ci ludul lim yuqra'u bopp dees na ko dajale mbooloo amut lim xam nga mbooloo lan mooy condition bi ñaar la bu njëkk bi si Ahmad Tijaani mooy na mat saa falakiya ñaareel bi mooy ittisaalul adkaari bil maghribi lii mooy dëgg condition bu njëkk bi ci hadratul jumaa bu ko mbooloo di def mooy dañoo war a matal une heure de temps bu manqué wul dara maanaam bi ñuy commencé ak bi ñuy pare dafa war a mat une heure minimum am nañu xadara deux heures de temps tu vois woon dinañ xadara une heure trente minutes léeg une heure quarante cinq minutes te looloo baax nag ndax bu ñu mënoon bu ñu julee tàkkusaan lal mbalaan mi ba timis ay ku ñam loolu dootoo ko bàyyi de da nga yaakamte ajuma ñëwaat de giñ naa ko ci yàlla nañ ko ñam ñu xool man moom du wax lu ñuy kii dañuy essayer ñu seet ba xam rek na moom dana matt ak du matt moom ki ciy bëgg xam dara mooy ki ci dugal loxoom rek hmm. mam moro nag ni mbooloo duñ leen wute lim mani nag mbooloo lay seen condition ci xadratul jumaati moy une heure de temps yo xamni day mat seuk ba noppi ñu jokalé ko ak gi koko charte la sine qua non c'est-à-dire du lu ñi set c'est non négociable na leer am na nag gis naa ay fatawa ak ay ubbee ci tariqa bi ñoo xam ni wax nañu nit ki nga xamante ni bii nii avant timis dafa war a am ngant mën na jàng lim bi nga xamante ni bii nii moom lay def ci laa ilaha illa allah su paree après mu bàyyi gis naa ñu ko wax waaye man du wax loolu de man li may wax mooy li nga xamante ni bii nii ñu ëpp ci tariqa bi loolu lañ jàngale te ba jëf jotee loolu lañ daan jëf loolu lay wax fam bunt yoo xam ne ëpp naa ubbi parce que boo ko ubbee bu yàggee mu yàq lu bari ci tariqa bi mhm. loolu la ñuy daw nag noonu loolu waral mu ni fii ma toll nag man station bii ma toll man Maodo radiyallahu an am na tuuti ay wax ci borom xam-xam yi moo tax gis nga lim ci ne wad tarabat min haahuna al aqwalu lada shuyuuxi fabxasanna ma qaalu mu ni fii nag wad tarabat baj-baji na min haahuna ci fii ñu toll ci junni laa ilaha illa allah ak junni ak juróom benni téeméer junni allah allah ak nangam nangam ci yu mel noonu lani wada tarabat yëngu na min haahuna ci fii al aqwalu wax yi la da suyuuxi bawoo ci sëriñ si xam nga nooy def yow taalibe bee hmm. ñu ni ko déedéet mu ni xanaa fab xasan na demal nga gëstu ji yow maa la nga xam ne xaalu wax nañ ko ñoom kii libéré wu la kii est ce que daf la tënk ci ne la alak mikk li nga war a def démocratie nag dëgg ma tariqa tijaan te Cheikh Alhaaji Malik radiallahu taala dafa bokk ci ñi nga xam ne dañu ko incarné lii rek la bu dul lii du lii man li ma wax rek moo wér sëriñ bi lool loolu da dul dëgg sax ci diine kooku yàlla ak yonent bi rek waaw looloo waral maam Maodo mu ni wadu torabat yëngu na bari na coow bari na werante kenn ku ne indi na proposition te muy wér nag min xeexu naa ci fii al aqwalu wax yi da dana siuxi bawoo ci sëriñ ci yow nooy def xanaa fab xasan na demal nga gëstu maaqaalu la ñu wax lan la ñu wax Maodo ni am na ñoo xam ne dañ ni junni laa ilaha illa allah ngay jàng jeex na am ñu ni wa mi'ataani tatba'aan alfun faqat junni laa ilaha illa dong am na ñu ni wa mi'ataani ñaari téeméer tatba'aan yi dañ cay topp muy junni ak ñaari téeméer di mille deux cent laa ilaha illa mu ni nag lil alfi junni bii mu wax qawlu ba'dihim len la ci waxu borom xam-xam yi bilam tiyani ci lu amul ben wérante ak ben katch deug la yenn ci borom xam-xam yi wax nañ ko lan la wax alfan li sitti del deug du ni El malik di jangale nak c'est très important aussi parce que aussi tamit borom xam-xam buy wax fay bax ngay xol ni muy mbindum mbindam nu mbind waxin la attention nu mbind waxin la xam nga borom bi bu tebe ni qul huwa allahu ahad lu tee mu ni qul allahu ahad lu tax tëralin bi mu dugal ci huwa ji pour yow c'est parce que dafa bëgg dindi incertitude ak doute ci sa bopp qul waxal yow yontu yàlla muhammad bul wax huwa mom de déedéet huwa liy mbir tey mbir damiru la huwa bu dëgg bu caaxaan jeexee dëgg des allahu buur yàlla ahad mooy kenn ki tëralin wi njàngale mi lolo ci nekk cheikh alhaaj malik tëralinu mbindam lu mu njëkk alfan li timir, junni ak juróom benn téeméer xam nga moom la njëkk doxale fi benn bayit ba noppi soo ko wax ni nag alfun faqat wa mi'ataani tatbaani lil alfi qawlu baadihim gi gis nga tëralin wi benn jëkk a tudd soo ko tudd am nañu wax junni am nañu wax ak ñaari téeméer léegi nan dem nga xam lu tax mu njëkk a tudd bi su ma ko waxee rek nga nangu de <laughs> waaw du par lo dëgg la wallahi xam nga junni laa ilaha illa allah ki ko soloo jële ko ci Cheikh Tidiane yi moo di sayidi Muhammad ibnu Abi Nasr al Alawi moom moo jële junni laa ilaha illa allah ci sayid Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu pour di ko xadra parce que nee naa la xadratul jumaa manqulun an idni al murabbi moo tax lu ñuy tuxal di ko jële ci ndigalal ki la yar ci yàlla la سيدي محمد بن ابي النصر العلوي جني لا اله الا الله لجيلي سيدي احمد تجاني موتا مو دون حضره اسكو دنج موتا واخ موتاخ موني الفن جني ومئتان تتبعاني مانام جني اك نياري تيمير ليل الف نيل جني وانا مانا امنا ني واخ ني جني اك نيا تيمير موي 1200 كان موكو اندي كيكو سولو جيليكو سيدي احمد تجاني رضي الله تعالى عنه موي خليفه بو ماك بو بروم صاحب كبير العظمه لا تخلد الى الياسي واصحب اخ الحزمي ذا جد إلى فاسي والله غوث البرايا والعباسي أحمد من معناه أعظم أن نجلى بقرطاسي قسنا كي وقلوا له مي سيدي إبراهيم الرياحي رضي الله عنه مم جل الجن أكنياري تمر لا إله إلا الله في شخص أحمد تيجي رضي الله تعالى عنه ديكو حضرة ليرنا متحمل الحضرة الجمعة من عن إذن المربي نلير دي. bu fekke julli ak juróom-benni téeméeri la ilaha illa allah ki kiko jele ci Seydi Ahmad koku moy ash asharifu al asil imam ar rabbaniyin radiyallahu taala anhu wa qaddasa bi di chamdul gaali sharif ki fekke tay démb ëllëgi tariqa bi lépp di xewé ci ganamam wa man alaaji bu mu fekkente ni bii naa fekke tay fekke démb fekke gannaaw démb fekke gannaaw tay ki nga xamante ni bii ni tey rek la fekkee ak ki nga xamante ni bii ni démb rek la fekkee bu ñu indee seen version te muy dëgg ban ngay jàpp yow xanaa ki fekke démb barki demb ak tey ki fekke démb ak barki démb ak tey kooku moo di ashériful asil di Cheikh Abdoul Ghali Chérif radiallahu taala anhu boo gisee Cheikh Alhaaji Malick bu ñu daan ubbee ci tariqa bi day indi kenn ku ne la mu wax ci question bi ñu posé wax ko ba pare su wëlbati ko daal di ni waaye nag waxu Cheikh Umar radiyallahu anhu tariqab Tijaan nun ci la ñuy sukkandiku xam nga lu tax parce que ci kii Cheikh Umar jëlee la Cheikh Umar ci kum jëlee Cheikh Abdul Ghali Cheikh Abdul Ghali ci kum jëlee Cheikh Tijaan nga xam ne daa fekke lépp moo tax da koon lakinna qawla sayyidi Cheikh Umar tariqana mu'tamadun wa mu'tabar loolu waral mu indi ju nekk juróom benni téeméeri direct ko directement daaj ko alfan li si timiatin waaw da ngay xam junj bi lu ko waral parce que Cheikh Abdoul Ghali bi ko indi la ndax Cheikh Abdoul Ghali Chérif moo jox Cheikh Umar Cheikh Umar maam Alpha maam Alpha Seydi Hadji Malick non noonu la tëddee de kay gis nga gis nga yëf yi ah waay wax ji jeex na fi ne de gis nga fi ne nii hmm. wax ji jeex na ferankulaayu na léegi wax naa nag bis bi wax naa lim yi Sidaaj Malick soññe gi wax naa ko dayo bi xadara am ak baat biñ koy defee wax naa ko wax naa itam li indi junni junneeg ñaari téeméer junneeg juróom benni téeméer nañ yeew fii jotaay bi léegi nag bu dajee waatee ma wax nu ñuy xadara nag ak ngëneel li nga xam ne moom moo nekk ci xadaratul jumaa ba taalibi tijaan bu nekk nag war ko bañ a ratee amee ngant nga defe ko sa biir xanaa nga feebar ba mënoo jóg wala nga kan nekk jigéen boo xam ne da ngaa gis baax nga xam ne dañ lay tànnaloo ci nga ba werd wala nga kan ba a kan. am sa ku am salas waaw eh, ngant boobu tere na ko déedéet day jàpp rek ñëw toog jullee gën a for bu amee salas bu julli jotee dañ ko naan lu mënti xew jàppal même bu salas bi amee ci julli gi feebar la ngant la du tee sa julli wér na Hmm? loolooy dëgg de alaaji bon nag mbokk yi xam naa alaaji moom jamono bu nekk moom ak Moustapha ak euh, Abdul Karim Chitu ak euh, suñu mbokk mi Seyd Ibrahim Diawo gars yi dig ma leen di laaj jamono bu ne nag ah ana alaaji ana Moustapha waaye alaaji na naa leen jox numéro orange monem waa na dëgg de wax dëgg yàlla waaw bu ko defee nag ci turu mboole soppe yi ak taalibe yi ñu ngi leen di jaajëfalaat waaw ñu ngi leen di jaajëfalaat waaw ci taxawaay yi waaw ah dëgg la di cheikh nga alaaji nga di yi ma wax yëpp dëgg la kon nag waaw ah Moussaf surtout de moom xam nga jàngalekat la xëy na am na layam <laughs> ba nag alaaji daal ci turu soppe yëpp daal ñi ngi leen di jaajëfal ci taxawaay yi ndax xam nga Moussaf yow itam ci taxawaay yi waaw ci taxawaay yi nee naa leen am na loo xam ni bu ko àddina yëpp waree def juróomi nit wuuti leen ca di ko def àddina yëpp danoo war a daje di leen wax jaajëf te lu ñu am ci loo xam ni lu war a doxal liggéey bële ci xalaat ak ñaan ak i koppar jox leen ko nit bu la taxawalee fenn yow itam nag da koy xamal ni ko am na foo ma taxawal sëñ bi lii mooy dëgg lii mooy dëgg parce que mbir mu nekk nag daa am lu koy doxal mbir likoy li moy doxal moy alaaji mbir moy Mustaf. doxal moy mustaf mbir mii likoy doxal moy Chitu mbir mii doxal moy Seydi Ibrahim bi waaw yonent bi mo moo ñu ko waxon nit bu la defale ñek soko munta fay lu tolloog ñek la yit ñaanal ko yalla fadu lahu ñaanal ko yalla me ñaan gi la mujjé de daf ni waaw fa kaafiuhu waaw bobu la jëkkee manam nang ko fay lu ñek li ba nopi boko munul muni nga soko ñaanal yalla moo tax li may wax sànq rek alaaji ci tëralinu wax ji waaw tëralinu wax yi xanaa xamoon man maa ngi ci doon bind benn téere bu ma tuddee sunnatul quran dama amatul jot maanaam alquran ni muy tërale ay waxam maa ngi ci doon bind benn téere waaw xam ngeen ñaanal nu rek bu yàlla defee tawfiq xëy na daañ ko mottali waaye jamono moom léeg day xate mooy tax ngeen di gis nga musaf ñaata waxtu sax lan toog defuñu cours yag na. buñ ko tuddu kay alaaji jaru ko de ah. wuu waaw wax nga deug de waaw yeme na. waaw. dañ waaw dañ na raxex kay dañ indi problème fi effectivement waaw parce que man mom waaw waaw. day saf <laughs> xorom ah mom dal liñu daan wax rek lañuy delu di waxat mbokk yi moy ni. Eh, keroog rek alaaji ben jigen dafa ñew mu set ma mu ma sa yu ma julle dana jang ñetti salaatal fatih ma yene lako barke alquran wallahi fekk dafa wara dem tukki dem boru États-Unis mi ngi may dégg suma la sunu sopela. la ndaysan muni mo indi fi passeport yi pour ñu ñaanal ko ndaysan mu ma danaay def fuma ma ba nopi rek ma jang ñetti fatih ma yene len ko ma ne ko li ngay def de wallahi lu ko gën a rëy amul ci ko ko xam laa wax waaw bari na bari na du jeex wallahi bari na waaye nag ànd loolu yëpp ñëpp rek ñu ngi leen di eh, eh, gërëm eh, di leen sant waaye nag ci seen tur yéen itam ñuy gërëm ak di sant wallahi Hadj Omar Moustapha Chitou Ibrahim Diawo ak ñi nekk ci liggéey parce que gis nga mbokk yi nag naka jekk amut lenn lu fi dox lu mooy ni sama borom yàlla daf koy teg ci ay loxo amul yalla du wacc def ben mbir ne eh, suñ borom bu nonu hmm day tagat nit ño xamanteni bi ni dalal la li la len charger ñu xam ca lan mo cey sen responsabilité ñu taxaw ca jeex na ko defé nak euh, ñun mom dañu tok fii nii dong di feñ di wax hmm. waaw ñun moom euh, lo lo lañu yalla natto séddee ko kon nak fa tabarakallah yalla ñu yalla motali yeb rek té nangul nuko incha allah bu nu dajawaatee nag nu dugg nag carrément ci xadratul jumaati baatu la ilaha illa allah ci diggante eh, nafyu ak isbat ak baatub allah allah ci loolu ñu tudde baqa ak loolu nga xamante ne bii ni moo di baatu huu bi nga xamante ne bii ni huwa bi ñuy jàng ci baatu qabdatu sidi ahmed sukay leeral na ko ci téeram boobu mu dee woon qurratul ayn an asilati xabiatil kawn dinaa ci ñëw xam ni laa ilaha illa allah bi ñuy jàng ak allah allah bi ñuy jàng dafa am lu ko indi tëralin woowu bu ko defee nag bokk yi ah ngeen jéggal nu rek gëje gi ni ma koy waxee rek ah waaw waaw loolu moom daañu après après ñu seet ko rek moom defi ne tabarakallahu yàlla nañu yàlla dimbali rek man nag bokk yi allahuma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq